localisation le savoir juridique en Afrique une résistance par le droit loolu nekk loo xamante ne moom la Juan Branco di wax yëkkati na ay kàddu tamit wax ci li nga xamante ne anam bi ko jàppee woon ak li nga xamante ne moom la doon dund ca kaso ga ak li nga xamante ni jamono ji moom lañu nekk di def euh, contre ki nga xamante ne rek mooy Ousmane Sonko. waaw xam nga lépp dafay ñëwaat ci benn moo boo xamante ni dañ koy tudd wala ñaari mot yoo xamante ni dañ koy tudd à chaque fois te man dama gëm ne dañoo ignorer seen sens. benn bi moo démocratie beneen bi topp moom mooy liberté parce que surtout liberté nga xam ne dafa ëmb lépp parce que à chaque fois dañuy wax lu jëm ci wàllum nit ki buy àddu ci ay kàddoom. ñu wax la liberté d'expression ba ci sunu euh, juridiction yi liberté de la justice loolu lépp nekk ay mbir yoo xamante ni buñ demee ba benn étranger. Euh, Juan Branco di ñu wax kanaan wala bokk di àddu ci anam bu mel noonu mooy que ne yaa problème est-ce que mm. tey waruñu xoolaat ñun suñ bopp nan lañ mën a gën a Euh, suudee sunu sunu sunu justice bi de sorte que dinañ mën a am seen indépendance waaye aussi nan lañ mën a def ba euh, defaat euh, disons ay réformes parce que mënuma comprendre li ñu gën a sonal mooy que ni contexte bi ñu nekkoon mm, dans les années 60 ba tax ñu defoon yenn ci ay réformes d'accord woon naa que ni dëppoo woon na ak contexte politique bi tolloon foofu dëppoo woon na aussi tamit ak tolluwaayu population bi amoon foofu. Mm. léegi bu ñu demee ba tey 2023 ñu bëgg même euh, euh, reforme yooyu noonu ñu wëy di ko appliquer ci en tout cas ay changement yu bëri yoo xamante ni am na fi dama gëm ne loolu yaa problème mm-hmm. kon Juan Branco dama koy nangul bensir sûr en tout cas li nga xamante ni wax na ko te loolu ñun ñëpp aussi tamit loolu moo waroon nekk euh, li ñuy wax à chaque fois que ni nañu def ay réforme changé waat sunu mbir yi. Mm-hmm. jéem a xool nu ñu defee ba am la séparation des pouvoirs parce que loolu mooy li nga xamante ni lu ñu gën a sonal bu fekkente ni Sénégal dafa dugg ci gudda mën naa ne loolu moo ko ci dugal parce que dafa am benn prince boo xamante ni ci doole yi ñu ko jox moom dafay bëgg à chaque fois li nga xamante ni moo ko neex wala li nga xamante ni moom moo ko arrangé parce que ñun ñëpp xam nañ ne euh, doone ma état moom mooy doxee noonu. parce que Sénégal rek mais benn na mën a ñëw di ñu wan comment comment comment li nga xamante ni mooy suñu waa waaw en réalité warul am mais lu tax hmm. duñ ko ko bañal mooy que ni mm, adduna bi moo ndaw da gis que benn tubaab mën na àddu ci àddu boo xamante ni moo xam écrivain la moo xam philosophe lu mu mën doon. Mm-hmm. dafay concerner en tout cas euh, àdduna bi yëpp. moo tax souvent aussi kenn ku nekk parce que maa ngi lire bërki démb euh, Éric Zemmour mu doon wax naan bu fekkante ni africain dañoo bëgg ñu abal leen ñoom aussi ñun dañoo bëgg ñu abal ñu. Mm-hmm. parce que kenn ku nekk da nga bëgg sa kii mais loolu lan lañ ci mën a waxee moom mooy juste Juan Branco taxawaay bi am. mooy que ni souvent da ngay gis ci moom ñaari casquette. Mm-hmm. parce que Juan Branco étant activiste ku ne xam na ne. Euh, au-delà de li mu nekk avocat dafay am benn combat bu muy mëne parce que à chaque fois boo gisee que ni euh, ci France ak yenn pays seen façon bi ñuy doxee mooy que ne dañuy am extrême gauche ak extrême droite. xañ na mm-hmm. peut-être loo bi mbokk moo ko permettre euh, des fois muy cumuler ñaari profit yi nga xamante ni nekk na ci moom. bu ko à la limite da gis benn Juan Branco bu pànk par rapport ak yeneen avocats yi parce que yeneen avocats yi loo mën di gis ci ñoom mooy que ne démarche bi ñuy mëne mooy dañuy jouer en tant que avocat. Juan Branco nag ñaari profil yu mu moo tax souvent euh, da ngay gis mu intervenir ci anam boo xamante ni danga nga naan est-ce que kii amul lu ne ci moom wala da xam ne kii ragalul fu mu jëm mais lu ñu si mën am moom mooy dafay ñëwaat ci sunu li nga xamante ni mooy sunu justice bi à tel point nan la daanoo wala nan la deltoo ginnaaw ci moment yoo xamante ni wax dëgg yàlla jàpp naa ne moment boobu moo nekkoon temps forum pour li ñu doon xalaat depuis cent ka naan Sénégal mësul am indépendance de la justice Sénégal mësul am liberté ci wàllum justice moment bi ñu tollan muy contexte bi ñu tollan noonu moo nekkoon moment bi nga xamante ni ci la waroon relever le défi parce que dama gëm ne bu ñu jëlan yat dóor ci digg bi dëgg aw fii ay caaxaan aw fii ñëpp le mu leer ci bopp ñëpp jàpp naa ne ñu bëree bëri dinañ joxaat gëdd li nga xamante ni moom mooy sunu justice bi mais euh, à quoi li nga xamante ni moo fi xew lépp ñu mën a taxaw naan ba tey Sénégal mu ngi am indépendance de la justice wala Sénégal ba tey mu ngi wéy di am li nga xamante ni moom mooy justice bu tëddee njaaxaanaay dama gëm ne loolu wax dëgg yàlla ay wax yu dem géej la moo tax Juan Branco xañ na peut-être dina xaw a nekk ab xont ci ñun étant citoyen sénégalais ci naan la koy doone mooy lan moo tax ñuy remettre en question suñu justice te boo demee ci ñoom dëkk yi nga xamante ni fa leen dëkk da ngay gis ka ni lépp lu moom mooy liberté lu fa am loolu mooy euh, transparence lépp lu fa am mooy li nga xamante ni en tout cas égale dignité pourquoi Sénégal mënul am loolu kon aussi tamit bu fekkante ni da nekk erreur ci benn mbir waroo bañ ko la pointer du doigt mhm. loolu moom moo ñu arrivé ñun ñëpp mais ñun nag mënuñu si lu passé soit mu metti ñu lan moo tax à chaque fois parce que boo xoolee complexe boobu noonu dafay wëy di kër di am parce que am na loo xamante ni àdduna bi buy euh, avancé yow nga nekk fi nga nekkoon mooy que ni waroo bañ ko la duut baram te lu ñu la wax aussi tamit nanga ko nga ko dékku xam ne yow yaa nekk en retard te loolu lépp daf ñuy rappeler waxu ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Anta dama gëm ne tardement yooyu noonu wax dëgg yàlla moo waral tey sunu justice bi mosul avancé mosul mm-hmm. toll fi nga xamante ni fa la yeneen yi toll parce que ñun ñëpp xam nañ ne à chaque fois euh, tubaab yi wala boog en tout cas justice yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew dañuy wëy di dawal seen justice selon contexte bi fi mu toll wala selon avancement bi nga xamante moo am ci àdduna bi mais Sénégal boo xoolee tey bu ñu lay wax ay kenn du ne ma tey am na ay réforme yoo xamante ni wala boog bëriwul ni dafa am récemment yu ci bëri ça de euh, daanaka dans les années 60 kon dama gëm ne loolu dafa nekk loo xamante lu obsolète la lu caduc la est tey waruñu defaat li nga xamante ni moom mooy réforme pour mën a tey li nga xamante ni loolu lay wax mu ñuy metti mu mën a nekk loo xamante dina saafaraw mm-hmm. Mbamba sa conception ci li Juan Branco def ci jot Jotna Média mu mel ne nag mi ngi ñëwaat ci li nga xamante ne rek mooy arestation ak li nga xamante ne mooy euh, jamono ji naka la Ousmane Sonko di dundee. waaw je pense que loolu euh, déjà bi mu génnee prison dem France je pense defoon na benn point de presse boo xam ne ñëwoon na ci mhm. euh, ci anam bi mu ko jàppee ak li mu dund ci prison bi ak euh, finalement naka lañ ko bàyyi il avait parlé jëm euh, ci wàllum pression boo xam ne teg nañ ko ci ndoddu a bu Sénégal moo tax quand même ñu di ko libéré vie peut-être li nga xam ne teg ko ci ndoddam à l'époque mu doon des charges wala mu doon ay li nga xam ne rek moo di ay tuuma yoo xam ne ay tuuma criminel la donc ñu déggoon le ministre qui disait à l'époque fekkoon ne ko fas ci wàllum yoon peut-être durée dina yàgg moo tax ñu bàyyi ko mu doon mhm. également

dafa am réalité boo xam ne am na les partis à l'époque ci mel ni parti socialiste lu ci mel ni AFP eh, dañ doon am benn euh, kuréel goo xam ne partout en Afrique dañ doon euh, lu lu tax ci biir biir da euh, la et li nga xam ne moo di politique gu Afrique et je pense que loolu dafa nekk loo xam lu lu lu malade la maintenant nag ñaawlu bi ak ñaawlu bu ci war a mën a def rek mooy bu ñuy demee tey ba toll en 2020 2023 ñu jàpp ne quand même am na loo xam ne war nañ ko mën a am ci wàllum avancée euh, significative ci wàllum démocratie ñu gis ne quand ñu ngi ci gën di delluwaat ginnaaw ñu ngi ci gën di amal benn reculade donc je pense que peut-être Juan Branco euh, tey bu fekkee ñun may nañ ko benn prox ndoll boo xam ne dafay dem ba di ci dugg di ñu yàpp di ñuy dem sax ba di ñu xaw mm. tooñaale donc je pense que pour man jàpp naa ne loolu tey kenn ku nekk am na ci part de responsabilité euh, bu souveraine dañu war a am ce qu'on benn indépendance dañu war a am ce qu'on appelle benn peut-être voie bi nga xam ne rek voie autorisée la pour que ñuy mën a doxal suñu politique mm-hmm. sans que tey mu am benn mémis de quiconque mais je pense que boo xoolee un peu par boo xoolee un peu par rapport ak doxalinu yenn ci ay présidents yu fi jaar tu sens nettement loxo tubaab yi dañ ci nekkee tout et jàpp na loolu dafa nekk benn erreur monumentale boo xam ne def nañ ko et je pense que loolu mooy nekk te nekk lu jëm ci wàllum acquis démocratique fan lañ ci toll et nekk ku waxal dëgg rek nga xam ne Sénégal tey dellu na gannaaw trop ci wàllum acquis démocratique parce que quand même bu fekkee dañuy toll ci réew moo xam ne kenn amatul droit am manifestation bu ñu demee ci réew moo xam ne mm-hmm. koo xam ne avoué dama nar li ci diwaanu Sénégal nga gis ne ñu ngi gor sa tànk te gor tànk boobee dañu gis ne lépp lu jëm ci wàllum euh, entité yu fa rek état dañ koy jëfandikoo pour gor sa tànk donc su fay doon ay mbir yoo xam ne pour man jàpp naa ne lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a salfaañee defar ay taxaw seel et moo tax bu mu war di wax di wàllum réforme dama ci d'accord parce que Afrique de façon globale ak Sénégal plus particulièrement dama gëm ne war na euh, mën a mooy foofu seen institution dañ ko ñàkk dañ ko def ba telle sorte que yow mm-hmm. président bi am na loo xam ne doo ko fa mën a def mais tey Afrique gi ngay gis président boo xam ne bu ñëwee du jëm ci constitution bi dina ko laaj fukki yoon wala ñaar fukki yoon wala téeméer a jóg mooy intérêt maanaam na ko gàllankoor mu changé waat ko yóbbu ko en sa faveur et je pense que loolu nag bu fekkee mooy xam-xam bu doon wax mooy am institution yu forte mm-hmm. euh, que yoo xam ne peut-être dañuy jël ah, oh. di ko salfaañi

concrètement référendum bi doo ko wax Sénégal cest à benn ndëgg sërëx la pour man jàpp naa loolu dafa nekk loo xam ne lu compliqué et que boo demee en États-Unis nga dem France nga dem yeneen réew dañ lay gëmal ne constitution bi bible la constitution bi alxuraan la ba dañ koy respecté de façon que mu leen di gënal yéen donc je pense que Afrique tey ci loolu la war a gën a travail waat ci loolu la gën a liggéeyaat ci loolu la dafay wane tout simplement suñu manque de maturité ak manque de li nga xam ne moo di loyauté ak sincérité bi nga xam ne war nañ ko am mm-hmm. vis-à-vis ak suñu ay naataango vis-à-vis également ak nit yoo xam ne mm-hmm. tey seeni réew am na loo xam ne xalaatuñ ko fa def bu ñu ñëwee Afrique gii dañ koy def ko nu mu leen neexee je pense que yoo xam ne pour man jàpp na ne les acteurs politiques y compris fi ñu mën a bokkee ci kujje gi

saaga et ñu woy rek di nekk fi ñu nekk pour man jàpp naa ne loolu dañ ko war a ci suñu langue politique dañ ko war dàq également ci ni defee politique dañ ko war a ci suñu ay jargon politique et que gëm naa ne y a des yoo xam ne bu ñuy toogee fii au niveau du Sénégal war nañ ko mën a war nañ ko mën amal war nañ ko mën a fësal et je pense que loolu dafay am solo boo xam ne solo bu am solo la et je pense que pour man Juan Branco tamit il réussit son gain de cause et je pense que loolu également mooy bëggu-bëggu euh, ki nga xam ne rek mooy avocat et je pense qu'il a réussi de façon globale. Mm-hmm. la façon bi moom lañ ko tegee loxo te comme li may wax temps rek moom nga xamante ni euh, daal koy may liberté provisoire mais anam bi mu fi duggee. tax na euh, arrestation yi bëri ba jotaat nañ keneen koo xamante ne dañ teg loxo ñu ne moom mooy nekk propriétaire hôtel bi nga xamante moom la Juan Branco xam nga pour man cette affaire là dama ko jàppee affaire affaire yu caaxaan quoi parce que je pourrais pas comprendre euh, mise à cause bi nga xam ne dafa dévier l'état du Sénégal xaw fan la jaaree ñuy naan Gambie la jaaree ñuy naan fee la jaaree mm-hmm. euh, dugg fi diwaanu Sénégal mën a toog ci benn point de presse wax lu mat fukki minutes ak ñaar yoo xam ne lancé na message par la suite il a fait six jours yoo xam ne kenn tegul ko gët ba par la suite même c'est peut du a rëbës mu fanaan fa benn guddeem ñëw ci ëllëg ñeeri euh, euh, mu ngi doon faire face ak nga xam ne mooy doyen des juges et bu mu demee sax di jàkkaarloo ak moom manque de respect bi mooy tontul ci question yi nga xam ne ñu doon ko laaj mm. et par la suite qu'est-ce qui s'est ne moom dugg ci avion boobu mu di Air Maroc et finalement dañ ko dugal ci Air France jëndal ko billet mu yéeg dem France et par la suite gis nga combat bi nga xam ne mu ngi di ko mëne et a fait une point de euh, wax lu ne li nga xam ne moo di réew Sénégal ma jàpp ne loolu aussi lu waroon mën a ñàkk la et tout et a ñàkk et tout a focus sur li nga xam ne moo lu jëm suñu wàllum justice naka la ñàkk suñu frontières yi parce que quoi puisse dire tey lu jëm ci suñu wàllu frontières yi jàpp naa ne lu ñu a def taxaw seetlu parce que tey da ngay gis plusieurs fois ñu naan la nit ki jaaree na fii dugg fii ñu naan fan la jaar naka la def ba dugg fii naka la def ba jaar fii et pour man jàpp naa loolu aussi lu ñu war a saytuwaale lu ñu